ami téléspectateur ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci fi nga xamante ni mooy seen euh, chaîne bi ngeen taamu ngir di fi euh, taataan ay xibaar également chaîne bi nga xamante ni mooy dugg ci biir réew mi ak fépp fi nga xamante ni rek askan wa ñu ngi fa ngir daal di waxtaan ak ñoom mais également dikk ak ñoom ci lépp li nga xamante ni rek mooy jafe-jafe askan wi euh, seen reportage du jour ni ki tey ñu ngi fii ci Géejawaay précisément fi nga xamante ni nag mooy Médina Médina Gounass fii ci bassin de rétention bi nga xamante ni nag moo fi daal di nekk ni ngeen ko gisee sama ginnaaw ak décor bi nga xamante ni moo ma daal di wër bi nga xamante ni moom laa daal di taxaw nii nag boo leen ko gisee moo nekkoon à la base li nga xamante ni mooy saafara jafe-jafe ñi nga xamante ni ñoo fi doon dund euh, mënd mi ci ay jamono yi nga xamante ni itam ndox mi sonaloon na leen euh, bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ni ñooy askanu géejawaay euh, ca loolee nag ñi nga xamante ni ñoo dëkkoon fii ci bassin de bi dañ leen a woon fii yóbbu woon fële ca plan jaxaay ngir ñu daal di fay aménager ginnaaw bi nga xamante ni nag ndox mi sonaloon na leen bi nga xamante ni ñoom jóge nañ fii ci bassin de rétention bi fii ci biir géejawaay ca loolee defee nag ñu daal di euh, gis ni finalement bile bassin nga xamante ni solution la woon wala saafara ngir daal di euh, soulager bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy askan wi euh, ci ndox mi leen daan sonal dafa mujjee jur beneen problème problème bi mooy ñi nga xamante ni naka ñoo fi daal di yeewoo fi la ñuy daal di mujjee di tuur seen i ay ndox yu tilim waaye tam di fi sànni seen ay mbalit fii sax daal di mujjee nekk li nga xamante ni mooy dépotoir d'ordure maanaam lép li nga xamante ni rek askan wi soxlaatuñu ko fii la ñuy ñëw daal di ko fiy sànni loolu ay jafe xamante ni ñoo fi daal di yeewoo ndax ndox mu bon bi sonal na leen également li nga xamante ne nag mooy mbir mi ni mu daal di nekkee fii ci seen biir zone bi euh, sonal na leen bu baax a baax waral na nag jamono ji ñuy yuuxu wallu ngir ku leen daal di dimbale bu baax a baax ngir ñu daal di saafara euh, bassin de rétention bi nga xamante ni mu ngi leen di euh, tàmbalee indi ay loraange li jëm ci wàllum yi gekk ni nga xamante ni noonu la ñu dundee dañuy daal di dugg ci biir gox beek goxaat bi waxtaan ak askan wi nga xamante ni ñoo fi daal di nekk ñoom itam ngir ñu daal di ñuy baaxee li nga xamante ni mooy ay jafe nekk fii ci Médina Gounass léegi-léegi alors ba tey ñu ngi fii ci bassin de rétention ni ma leen ko waxee rek jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy daal di dund askan wi nga xamante ni ñooy yeewoo fii mais fekk si naa fi également koo xamante ni bokk na ci ñoo xamante ñu ngi promouvoir wala ñu ngi xam ne ñu ngi fësal jafe-jafe yi bi mu ngi koy daal di jural askan wi moom mu bokk ni ñoo fi yeewoo mais également saa bu tollee rek euh, saa bu yëkkatee kàddu rek day daal di naqarlu li nga xamante ni la bassin bi nekkee mais également li nga xamante ni moom la ñuy ñoom askan wi nekk fii ci ci Medina Gounass ñu gën ko xam ci l'homme euh, plastique tudd Modou Fall moom la ñuy daal di dem fekk ji comme ça mu expliquer ñu bu baax a baax li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi ñuy dund fii ci bassin de rétention bi. sëñ bi maa ngi nuyu l'homme plastique wala Modou Fall. alors euh, ñu fekk si la fii ci euh, bassin de rétention bi mën nañu xam déjà historique u bassin de rétention bi lan moo waraloon à la base li nga xamante ni mooy bassin de rétention bi waaw bassin bi nag dafa nekk bassin boo xamante nii donc euh, ci jamonoy président Abdoulaye Wade lañ ko gasoon mais li waraloon ñu gas ko nag bokkoon na ci ñi dëkk fii ci Médina Gounass mbënd mi sonaloon na leen sonal goo xamante nii donc vraiment métti woon na trop ba foo ko natt rek weesu na ko donc yàlla def ni nit ñi mënuñu dëkk ci ndox mi président Abdoulaye Wade donc créé plan jaxaay ñu jëlee leen fii yóbbu leen jaxaay mais après euh, bassin bi dafa servir donc donc benn solution sur les eaux pluviales yi nga xamante ni mooy am yëmbal Pikine géejawaay yëpp ndox yooyu ñu dajale leen fii di ko évacuer ci géej gi mais dina permettre aussi ñuy am ndox en permanent 24 heures sur 24 ñi nga xamante ni dañu bëgg a liggéey voilà donc mu nekkoon loo xamante ni wax dëgg yàlla ay solution yu bëree bëri donc moo taxoon ñu euh, taxawal bassin bi mais par contre dem nañ ba benn instant solution yooyu gis nañ ni tey jii bi nguuruk président Abdoulaye Wade jeexee donc beneen régime ñëw donc gis nañ fi ay cas de noyade donc moom moo waral sax ñu teg fi benn base sapeur pompier pour muy permettre tey jii donc cas de yi bañ a amati. à la kon ndox mi da daan bëri de telle sorte que nit ñi dañ fi daan sax ñëw di lam. waaw soo gisee ndox mi li mu daan bëri c'est parce que soo xoolee Pikine ginnaaw raay euh, yëmbal euh, euh, nu mu tudd Caaroy Médina Gounass ñun ñëpp tey ba ci géejawaay ñëpp ñun ñooy recevoir seeni ndox parce que tey boo xoolee li ko dalee marché Zeng ndox mi kuulee foofu yëpp fii la jëm si soo tollee maanaam euh, lycée kanada ndox mi jóge parcelle yëpp di ñëw Canada fii lay jëm si mu nekk ay phénomènes yoo xamante ni tey ñii dañ doon souffrir souffrance bu métti donc ndox mi nag donc biñ ko gasee ba pare amul woon collecteur mu jur ay cas de noyade parce que xale yi bu ñu fubalee seen bal dugg ci faaw ñu dem récupérer ko léeg-léeg xale yi tamit dem wuti seeni i ne dañuy ñëw di wut ay jën mu indi ay jafe-jafe donc loolu taxoon na état bi collecteur bassin yëpp ñu tëj ko mais ñun biñ fi ñëwee. dañu trouvé wu ne fekk nañ bassin bi mu nekk tuurukaayu mbalit bi gën a rëy donc loolu moom moo waral vraiment ci diiru fukki fan ak juróom ñu liggéey fi liggéey bu mucc ayib ak agence sénégalaise de la reforestation grande muraille verte liggéey fi liggéey bu mucc ayib ba génnee mbalit mi commencé bi di fi former ay ndaw moom moo waral tey gis ngeen lii ngeen gis nii tey jii ci bassin bi ay jigéen yu bari yu dëkk ci gox bi donc dañuy génn seen kër ñëw liggéey si donc fii lañ leen former li ñu leen formé nag bu dara lu dul li nga xamante ni mooy agriculture donc mën a bay li nga xamante ni yaa ngi koy dundee donc vraiment loolu moom moo waral gis ngeen macha allah daal ñi ñu formé daal rëccu ñu vraiment seen formation. bu ñu taxawee un peu ci jafe-jafe yi comme ni nga ko expliqué sànq bokk bokk na ci euh, ni ci xale yi doon labeeg yu ni mel euh, également gis nañu ni ñax yi dafa dem ba daal di jël volume maanaam dafa gudd de telle sorte que euh, fii mën na nekk zone bi nga xamante ni également insécurité mën nañu ko fee waaw insécurité mën nañ ko fi wax mën nañ fi wax insécurité parce que insécurité mi ngi commencé foo xamante nii chaque fois dañ fay nemmeeku les charretiers ñu ñëw di fa gaare donc bu ñu commencé di ñëw di gaare ci benn bërëb bi ñoom en même temps ñooy jëli mbalit ci yenn bërëb yi ñëw di ko fi këpp loolu bokk na ci li nga xamante nii population bi jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg parce que les charretiers fu ñu commencé di stationner rek donc banditisme day daal di dugg te fii nekk na milieu boo xamante ni tey sérieusement jëlee nañ fi lu baree bare bari donc insécurité boobu daal xëy na moom la ñuy ñaan sunu kilifa yi gën cee góorgóorlu pour euh, mën a vraiment dimbali askan wi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Médina Gounass euh, di dund ci tool yi ñax mi doon na loo xamante ni mën na indi ay solution yu baree bari parce que c'est de l'argent chaque année état dina ci dépenser des centaines de millions pour ñu dagg ko dem tuuri ko te lii tey jii paille bi mën nañ ko transformer sur plusieurs choses mais le problème mooy dañu amoon ay kilifa yoo xamante ni amuñu confiance ci seeni doomi réew mais wóoluwuñ leen ci yenn projet yi ñu leen di jox mais c'est de l'argent te chaque année ñu dagg ko bu ñu ko daggee même pas un mois nga gis affaire bi développé waat parce que bu ñu ñëwee ay jaasi lañ koy daggee te lii kenn du ko dagg da nga koy dindi à la source foofu nga koy dindee mu bañ a saxat mais boo ko daggee ci kaw rek donc da ngay gis ne euh, day jëlaat donc loolu lañ fi doon jéem nag indi fi benn pocolin pocolin bi dugg ci biir daanaka moo daaneel miir yëpp parce que nab bi donc soriwul daf ba pare dafa nooy waaw loolu moom indi donc vraiment insécurité bi commencé di dellu siwaat parce que miir yi dafa daanu surtout tous les plans te loolu nag bu amee rek fu neex waay mën a jaar fu neex waay mën a génn rek donc pour liggéey fi day daal di xaw a jafe loolu bokk na ci li tax ñu sàcc suñuy ginaar sàcc suñuy pigeon mais sàcc fii loo xamante nii daanaka liggéeykat boo liggéey ba pare sa matériel da nga koy gàddu dem yóbbu sa kër. loolu nekk na jafe-jafe mais également fekk nañ de l'autre partie li nga xamante ni mooy beneen euh, wàll wi dañu gis ay naanaak ay ngungun ak ay xeetu affaire yoo xamante ni mu ngi sax fii euh, ci beneen euh, pàcc bi nga xamante ni moo nekk si biir bassin bi est-ce que mën nañu xam ni mën nañu wax également que ni ñi nga xamante ni ñoo fi dëkk dëkk ñoom itam gis nañu ni espace bi mën nañu ko exploiter ci beneen anam maanaam ñoo xamante ni ñoom itam dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax mooy comme ni nga expliquer ay jigéen wala ay góor ñu ngi daal di exploiter partie bi di def ay naana ay ngungun ay ay ay yeneen yi nga xamante ni dañ koy daal di soxla ci biir kër yi jàpp ne mooy point positif bi nga xamante ni espace bi am na ko. waaw nekk na point bu am solo parce que jigéen ñi nga xamante ni ñoom lañ fi formé tey ñoom ñoo nekk nii xam naa ni ñoom dinañ waxal seen bopp nga dégg parce que rëccuwuñu dara ci formation bi nga xamante nii def nañ ko ak ñoom tey moom moo leen jural tey njëriñ loo xamante nii vraiment dinañ mën a toog liggéey seen liggéey mais ci biir liggéey boobu nag soxla nañ ndimbalu état mais soxla nañu aussi ndimbalu commune bi. ci fii nga xamante nii moom la ñu nekk di fi daan seen doole parce que bu dul woon ñoom day continuer nekk dépotoir d'ordures mais rey nañ fi seen bopp dindi fi mbalit mi fi ne woon daj fi lu ne tey sérieusement ba bërëb bi mën a mel nii tey daanaka boo xoolee population bi dëkk ci alentour bi yëpp bu ñu soxlaa naanaa lu ñu mën a soxla banaana papaay yëpp fii la ñuy ñëw. suuf si suuf nangu la en fait parce que yaa ngi wax ni napp la moo waraloon sax di xoolee donc ci histoire ay jamono. donc euh, fii dafa nekkoon benn place boo xamante ni place ndox la mës a doon donc euh, àdduna mooy dox sécheresse am affaire yooyu donc yu ci bëri disparaître mais tey bu ñu demee ba gis nga boo génnee ci mbedd bi boo gasee un mètre da ngay am ndox parce que fii milieu la boo xamante ni sérieusement amuñu jafe-jafe ndox parce que tey bëri na ci secteurs yi bu robinet tëjee sax maanaam secteur Gounass ñu ci bëri dañuy am ndox parce que dafa xóot waaw ci napp la nekk donc loolu bokk na ci vraiment li tax tey fii nangu-nangu boo xamante nii loo fi bay mu sax donc amoon na ay jën amoon na beaucoup d'espèces mais tey espèce yu ci bari dafa nekk en voie de disparition parce que li waral mu nekk en voie de disparition parce que tey mbalit mi bari na fi mais cuubkat yi tamit donc lépp lu ñu liggéey ci produit chimique fi lañ koy sot loolu indi benn jafe-jafe ba nga xamante nii tey nit pour mu bàyyi fi sax lu baax problème la. léegi dañuy dem ci jigéen ñi nga xamante ni yaa ngi ñu koy wax ñu nekk di exploité zone bi euh, beneen partie bi nga xamante ni moo nekk fii ci bassin bi ñoom ñi nga xamante ni ñoo fi béy naanaa yekk yu ni mel ñu dem waxtaan ak ñoom également ci seen activité. bi dañoo ñëw. ñu gis ay nit di béy fii ci bassin bi léegi nag ñu ne ñun ñii di béy fii te ñun ñu ngi dëkk fii dañuy ñëw ñun tamit ñu xool ni ñuy def ni ñun tamit ñu def ko noonu juróom lañu nag mbalit kese moo fi nekkoon ñun juróom lañu ah, sunu mag bi nag dafa feebar dafa dem hôpital tey rendez-vous na waaye ñun juróom lañu ñun ñoo commencé fii bi ñuy commencé fii nag dañoo ñëw kii kii ngeen àndal ci ñoom lañ jëm dem ñu ñëw ñu ne dañoo bokk liggéey bassin bi léegi nag ñu ñëw àndak ak ñun dimbali ñu boobu nag fii doy na waar torop metti na torop torop torop ku yore woon mbalitam fii lay tuur mbalit dafa ñëwoon ba yegg si fii waaye ñuy bëri rek ñu nekk ay jigéen rek ñu ne tànk dañoo toog ci kër gi defuñu dara te ñu ngi yore suñuy njaboot waat suñu loxo jotul suñu gannaaw xëy na suñ ci jàppee. xëy na dina am luñ ci suturloo léegi nag ñu ñëw nag ñuy ñëw dimbali ñu ñu fay xaalis xaalis lañ fi def balaa lii di taxaw xaalis moom lañ fi def waaw pour am espace waa mbalit la mbalit bi ñuy fay ay xale yu góor ñu ñuy ligg ñu ñuy dimbali di ñu jàppale ci mbalit bi ñun tamit ñu ciy def suñu yeewoo suba rek fii lañ fii rek la ñuy yendu ba deux léegi léegi lañ fi ñibbi ki la nekk ba 2 heures léegi nag ñu nekk fii ñu xale yu góor yi di jàpp ñun tamit ñooy jàpp di bale di defar ba espace ñii commencé ñoo woon nan la ñuy jiwee naanaa bi léegi nag ñuy def ñu tamit ñuy def di waaw dañoo dañoo won nuñ naanaa bi nan lañ koy jiwee léegi nag ñun tamit ñu topp ci ñun tamit ñuy def ñuy def ñuy def ba yàlla suturaal ñu ñun tamit ñu mën bi ñu mënee ñu commencé ñun tamit di defaral seen bopp. jafe-jafe bi bëri na ne roos bi dafa metti suñu amoon ay machine tey ñu dimbali ñu nu ñu roosee dina tane ay jigéen lañu te fi nga gis ni bu ñu gisee ni ay mag lañu duñu ay xale te ñun ñu fi taxaw parce que ku ne am na juróom fukki at. xam nga duñ xale ay mag lañ xëy na dañu bëgg ñoo toog rek waa jeex na ba léegi rek dégg nga léegi nag loolu mooy suñu jafe-jafe suñu amoon waat yeneen espace yu gën fii dañuy liggéey loolu la xam léegi nag suñu demee ba defar bay commencé jaay naanaa ba fu muy neexee ñu ne dañuy raxas basin bi ñu dindi lii yëpp ay gattax yi tegal ñu ci waat ah xamuñu dañuy xew yeewu rek gis ñu ñuy defar suñuy defarwaat xam nga tey mënoon nañoo defar ñu bàyyi suñu bagage yi tànk ay jigéen lañ te ñuy liggéey waaye déedéet dañuy yëkkati sotti ñu. déedéet dañuy gis rek ay nit ñu nga xam ne dañ leen a jël waaw ñii ñii ñi fi mujjee ñëw dégg nga de ñooñu moom tane na comprendre ñooñu moom tane na bi ñu ñëwee fekk fi ñu ñuy liggéey ay jigéen lañu rek dañoo dawal yërmande. bi ñu ñëwee fole suñu dindee puus puus puus ba fole sotti puus puus ba fole sotti suñu tool yële dafa yàqu woon léegi nag bu ñu defaree ba pare ñu toog ñu ne ah nañ commencé waat tànk ñax yi ak salte yi nekk ci biir yëpp dañuy buddi tegal ñu ko ci duñ ko duñ ko jël dañ koy jëlaat def ko ci tool yi ñu ne ñu toogee ba nga xam ne wow na daal ñu commencé waat ñu wàcceewaat defar sëqaat ba nga xam ni sëq nañu waat ba ñu xam ne am nañu pla am nañu waat nu ñu jiwee léegi nag baat ñu commencé ji suñu commencé ji ji ji baat ba mu ba nga xam ni alhamdulilah ñu ngi ciy sant yàlla am ci lu ñu suturloo dégg nga de ñu toog nag suñu yeewu suba suñu yeewu rek fii la ñuy yendu di roose di xool salte bi ci nekk ñu for pompe defal lépp yàlla nag moo ñu sutura waaye suñu amee ku ñu dimbali bëgg nañu waaw suñu sañoon ñu am espace bu ëpp bi suñu sañoon waat am ay machine ñi ñuy jàppale boobu dañ doon def salaat dañ doon def kaani salaat dañ doon def euh, jaxatu dañ doon def batayse dégg nga dañ doon def tamaate koom-koom dañ ko doon def lépp lañ doon ji fii waaw léegi nag mënatuñu amuñu espace waaw espace bi moo amul léegi nag lu ñu am fii mun mënuñu cee boole dara xanaa naanaa bi rek la ñuy ci def ci suñu papaye ak suñu banaana dégg nga de am suñu def ci suñu batay si tuuti ne tey mënoo def fii batay si ba mu bëri mënul nekk amul espace léegi benn rek ngay def muy muy sax nga ci dindi di yóbbu kër ga di lekk léegi nag ñun ku ñu dimbali rek lañ bëgg ay jigéen lañu. ku ñu jox xaalis ku ñu financé ñu liggéey ku ñu def may suuf ñu liggéey loolu rek la bëgg suñu ñëw suñu yàlla dimbalee nag mbalit bii mu jóge fi moom la ñu bëgg ne fii la ñu dëkk fii lañu juddoo fii la ñu yaroo fii lañu ñu fii rek la ñu bëgg waaw sa torop xam nga lu tax mu sonal ñu tey nit su ñëwee di tuur nit su ñëwee tey di tuur soo ko waxee yow xoolal fii lekk moo fi nekk bu fi tuur ñu ne ndax yaa ko moom fii gunaas yëpp ko bokk du noonu waaye tey même fii ñu defar fii rek mooy balit bi fii euh, lii bii ñu defar fii suñu amoon tey ku ko garde dégg nga de tuur ko fii léegi nag lii suñu nang suñu amoon ku ñu ko gardel suñu amoon fii tey ku ñu ñi nekk fii ñu defar fi ay pôle ñu am fi ay gardien xam nga soo ñëwee di tuur dinañ la wax waaw dinañ dinañ xool looy tuur su nekkee dafa set ndox kese la ñu ne la tuural su nekkee du ndox kese ñu ne la lool am na ñoo xam ne dañuy cuub fii lañu nekkoon di cuub ñu dindi leen fi mooy fii ñu tabax fii ñu tabax fii lañu ñu jëloon def fi espace di di di cuub léegi nag bi ñuy defar fii ñu dindi leen léegi nag am na ñoo xam ne am nañ fi ay kër seen biir kër la ñuy cuub suñu cuubee ba pare fay saret yéegal ko ñëw sotti ko fi léegi nag suñ ko sottee fii soo ñëwee nga ne leen xool leen lii tent la asib la bu leen ko sotti fii borom saret yi ñëw su ñu ŋaaŋee ñu ne leen moomu leen fi aleykum e e man Mouhamadou Konté la waaw fii laa liggéey cuubu yi mais da ngeen bëgg pour dajale kaalis ñu ñëw defar fii yëpp mais a kaalis yi moo dajewul mais dañu bëgg dajale pour e, ku ku ku léegi liggéey fii waaw dañuy bëgg a encaissé pour ñu ñëw liggéey ah fan laa e, parce que Paka Kirim bee après ñu jëndee foofu ñu tukki foofu après ñu ñëw fii ah wala ñu ñëw wax ñu ñëw fii ah déedéet déedéet chef moo wax eh, benn eh, fii am na seef waaw ah, moo dem boo xamu fan la dem après benn grand moo wax ne nañ ah, kaay liggéey fii bu ñu amee place bu ñu amee place mais fii nan ah, fii na dañoo defar fii ba pare aw déedéet nee na euh, euh, déedéet xam nga day wax liggéey fii ah loolu la wax nee na kaay ñu liggéey fii suñu liggéey fii après ñu defar fii yëpp même mbalit bi ñu defar fii mbalit fii yëpp après ñu def fii mbalit mbaa lay def mbalit après kaar si moo motul ah, moo motul looloo tax de di am xaalis après ñu def euh, kii balaka bu ngandi ñu defar fii yëpp pour message fii yëpp ah loolu la ñu bugga mais fan yii xaalis moo amul waaw ba dëgg yàlla xaalis amul xaalis eh, eh, amee dañuy bugg a defar fii mais euh, ku ñëw fii da nga kontaan waaw ah, waaw loolu la su ñu amee xaalis rek dañuy defar fii comme ça su eh, la euh, comme ça ker waaw loolu la ñu bugg xam nga fi nga nekk foofu nga bugg a kii waaw wala foofu nga seetal ah, wala loolu la ñu bugg. awa ah, loolu la ñu bëgg eh, loolu la ñu bëgg ñu fee mbaar bi eh, eh, bu gandi su feesee ñu woo borom oto bi ñu ñëw jël si ko yóbbu ko ah, wax dem tuuru feneen waaw ah, loolu lañu ñu bëgg mais moo am fan yii yëpp calcé moo am looloo tax ah ah ñu amul fu ñu dem ah waaw amul fu ñu dem de xanaa fii rek suñu doole lañu ñu Euh, dañuy bëgg pour xaalis euh, su ñu amee xaalis ñu defar fii bu baax loolu la ñu moom lañ doon wax ci maanaam les sacs de sacs en plastique parce que gis nga nii lay dégradé woo ci di yàq suñu suuf si. lii bu duggee ci bassin bi maanaam beneen jafe-jafe la kon bu ñuy dénoncer les industries de cimenterie ci ciment bi ñi nga xamante ni ñu ngi koy commencé di ko def ci sac plastique yi lii rek njeexital bii rek la ñuy bañ mu dem ci baykat yi wala sàmmkat yi wala nappkat yi parce que gis ngeen ko nii lay nii lay dégradé woo gis ngeen ko gis ngeen ko c'est comme ça lii yëpp gis nga ko donc matière ay jetable la yoo xamante ni mën nañ ko valoriser jox ko une deuxième chance de vie mais malheureusement donc euh, système de valorisation bi mi ngi sooxe sooxe boo xamante ni xëy na bu ak le nouveau gouvernement bu ñu ci doxee ay jéego rek lu ci bari daa yaakaar naa ni dootuñu ko gis ci yenn place publique yi. ñu nekk ci benn zone boo xamante ni tey nekk na zone boo xamante ni richesse la war a doon ci commune bu Médina Gounass parce que tey ñi nga xamante ni ñëpp dañ leen a former fii ñuy def pisciculture tey doon xëy. di daani seen doole wala amatuñ ci luñ jàpp tey fii la ñu yaakaar mais tey lii dem na ba mu nekk benn ses de sabotage boo xamante ni donc dañuy gis ne mbalit mi fu nekk lay jóge di ñëw ñu ko sotti fii te fii nekkul place tuurukaayu mbalit jàpp naa ne tey li gën a am solo mooy ñu respecter barab bi parce que nekk na barab boo xamante ni tey moom mooy poumon veeru Géejawaay te géejawaay yaakaar naa ni tey jii bu nekkee poumon veeru ndakaaru yaakaar naa ni problème yu bëri yu ñu doon sentir ci problème climat dootuñu ko sentir parce que tey li fiy teersi ci ay oiseaux migratoires di jógee dëkk bu nekk di ñëw di teersi fii yu ci bëri daanaka dem na ba nekk en voie de disparition donc mbott yi sax donc pour nga dégg leen sax léegi donc nekk na beneen jafe-jafe te population bi rendre luñ ci compte parce que kenn ku ci nekk da ngay toog sa kër ne sama yoon newu ci te sama yoon newu ci boobu nag moom moo ñu indil jafe bi yëpp parce que gis ngeen fii ñu taxaw lii yëpp ndox la woon parce que miir bi mi ngi yemoon fële mais gis nga ko ñi fi dugg di defar travaux yi nga xamante ni ñoom ñoo daaneel miir yëpp favoriser entrée wu borom sareet yi favoriser wu donc sareetier yi di ñëw difi indi seen mbalit ñoom ñooy responsable parce que ba ñu daaneelee mur bi ndax liggéey ba ñu pare mënoon nañ koo defar mais maleureusement dañoo pare liggéey bi setul baaxul ñu jël seen i bagage dem seen yoon bàyyi ñoom mur bu daanu insécurité bi nga xamante ni tey askanu Médina Gounass vraiment ñu ngi koy léeg-léeg mu am fi mais yàlla mi ngi ñuy suturaal am nañ fi ci côté bi benn base boo xamante ni sapeur pompier ñoom ñoo fi nekk xëy na léeg-léeg lu ci bari ñoom ñooy intervenir ba ñaawteef yu bëri du mun a am mais tamit ñoom it chaque instant ñu nekk parce que loolu nekkul seen liggéey ñoom seen liggéey mooy surveiller bassin bi mais surveiller tamit aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yi nga xamante ni ci biir. jël si seen bal mais la rôle de la police fii ci biir Médina Gounass parce que tey bañ nañ ko ba ku jàpp sàcc sax wala agresseur sax foofu nga koy yóbbu ci ñoom ñoom ñu def le ci war dem jébbal ko police kon yaakaar naa ni gox bu mel ni Médina Gounass am potentiel yu mel ni bassin yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër war nañu mën a xool exactement ndaw ña fa nekk di ci yëngu parce que agent sénégalaise de la reforestation wane na fi benn exemple exemple boobu mën na dem sur tous les bassins yoo xamante ni dina permettre tey bassin yi dootul nekk tuurukaayu mbalit mais ressource lay nekk pour commune bi mais ressource lay nekk pour askanu Sénégal yëpp parce que liñ fiy bay yëpp bio la mais bu ñu seetaanee ba ñu yàq ko tey musiba rek la ñuy indi parce que ñi nekk fii di liggéey bu ñu amatul fu ñu liggéey ñoom ñooy génn ci mbedd mi dem wuti leneen comme nag ñi ngi fi nekk di liggéey di fi former ay jeunes war nañu xool ñi nga xamante ni ñoo fa nekk. nan lañ leen war a mën a encadrer mais nan lañ leen war a mën a jàppale liggéey bi ñuy def ñu gën a mucc maa ngi tudd Iba Gaye dëkk Géejawaay Medina Gounass nekk fi si tollu kër bu Géejawaay ñu fiy bay maanaam lépp luy bio amul benn produit chimique te li ñuy bay fii tamit yaa nekkul produit bi nga xam ne nit dina ko lekk di si jël ay loru produit bi nga xam ne amul benn engrais amul benn toxique ñëpp mën nañu ko jariñoo bon fii maanaam boo déggee toolu kër mooy initiative boobu la pour maanaam lépp loo xam ne kër da koy soxla rek produit yi am na fi basante supame tomate naana plant médicinal ak lépp am na fi yenn genre bon yaa am na melis am na soos am na nebedaay am na xottu butéel yëpp maanaam ay plant médicinal yoo xam ne gars yi ñu ngi fi wër si pour faju kan kan kan kan bu ko dégg li si mel ni mbanta maada xam nga mbanta maada raar na fi mu nii te li bëri na loo xam ne moo ngi koy faj si réew mi te ñu bëri instant mënu ñoo ko gis fii si Dakar lii ponkaneel la mooy garab bi ponkaneel dana fi fruits yi nga xam ne yu ba defaraa ci dëkk bi yoo xam mëntu koo gis fii rek nga koy gisee lu ci bëri lii moom ay naanaa la dañuy wax céleri bi dama épice la céleri mooy céleri épice la quoi bu leen ñuy jël ay bouillon affaire boo ko jëlee pour ma la waroon sànq boolekaag milice yooyu yëpp ay épice la moo gën jumbo beeg bouillon bi ñuy def. mooy li nga xamante ni bu ñu ñëwee ak élèves yi éducation environnement yi ñuy def donc euh, di leen jàngal grain yi ni muy commencé donc bu ñu jëlee grain yi sol génn yi commencé ko jëmbat donc mu commencé di génn donc bu ñu demee un mois de mois donc bu ñu amee ay programme ci école yi donc moom la ñuy jël rek dem yóbbu donc loolu moom moo ñu may tey fi mu nekk nii bu ñu soxlaa garab. du ñu dem ci eaux et di ko laaj garab mais ñun ñooy defaral suñu bopp suñu garab dem yóbbu ko ci endroit bi jëmbat waaw bassin bi tey boo xoolee tey moom moo ñuy permettre tey li fiy meññeef yëpp ñu mën a am ndox mu koy arroser mais tey léeg-léeg mu am benn défaillance technique ci problème mu groupe bi nga xamante ni moom mooy aspirer ndox mi pour évacuer ko géej léeg-léeg mu xaw a paan wala mu am problème day dem ba ndox mi day déborder carrément donc bu nawet bi jóge jotee comme nawetu daaw yàlla suturaal nañu nawet na ba jeex donc amuñu problème mu ndox mais daaw jéeg daanaka boo xoolee pour fii ñu taxaw nii sax mënuñu fi am accès parce que ndox mi dafay déborder mais alhamdulilah ñi ngi ñaan tamit na mu meloon daaw daaw donc mu mel ni ko raw daaw mais gis nga ko tey fi mu nekk nii ndox mi mi ngi commencé bu ñu pompul rek ndox mi day commencé di feeñ ci suuf si nga xamante nii fii loo fi def tey ci légume da koy rey parce que day day jël ndox moo xamante nii da day day ëpp li mu doon laaj waaw donc loolu day dem ba finalement bu dul garab bu dëgër wala garabu fruit yooyu donc du mën a tenir ndox mi quoi day dem ba finalement gis nga même panneau yi ngay gis nii salon yi boo duggee doo ko gis ndox mi day ñëw ba da koy muur yëpp donc loolu ay jafe-jafe la mais comme fii dafa nekk place boo xamante nii donc c'est pour accueillir les eaux pluviales donc munu amuñu ci sañ-sañ di ci def naka sudul noonu parce que fii dañ fii dañ ko defar pour mu nekk benn centre de formation mais dañ ko defar pour mu nekk benn centre de solution pour askanu Sénégal kon amuñu sañ-sañu li état defar ñu jël di gas wala di ko suul donc loolu tey jii li ñu nga xamante ni fa la ñu sunu périmètre fa la yem rek foofu la ñu mën a yem mais tamit donc bu ñu amee tamit ndimbalu état dinañu permettre tey jii li ñu bëgg a def fii ñu def ko parce que tey daanaka ci sunu programme un million d' romb nañ presque quatre mille quatre mille arbres yoo xamante ni planté nañ ko soit ci école yi wala ci quartier yi te lépp fii lañ ko defaree ak sunu équipe donc amuñ ci benn jafejafe daal. waaw actuellement nii nag donc euh, am ñu maire maire de la commune parce que bu ñu fi nekkee tey jii donc maire bi moom moo ñu jox sañ-sañ ñu nekk fi moo ñu jox autorisation ñu nekk fi nekk bi rek baax na d'accord tamit donc ñu ñuy jàppale parfois ci yenn moyens mais li ñu gën a soxla nekkul ay somme yoo xamante ni donc ay cinquante mille wala benn cent mille ñëw may la ko pour benn projet déedéet ñun dañu bëgg donc loo xamante ni bu ñu soxlaa. nañ am outil bu ñu liggéeyee parce que loolu dafay dimbali tey ji ñi ñuy former saa bu ñu ñëwee fekk fi li nga xamante nii moom lañu leen war a former mais am na ci loo xamante nii jàppale la mais jàppale bi gën naa des daal te bu ñu amoon li nga xamante nii moom moo ñu gënal vraiment tey benn jigéen dootul jóge ci médine Gounass di dem di nduggi ji marché parce que mën nañ fi yar ginaar doon nañ fi yar ay ginaar am fi ay problème donc parce que les gens mal intentionnés dañuy xuus ci ndox mi jaar dugg fii parce que mën nga tëj sa buntu mais ki jaar ci ndox mi boo xasee ba wàcce mënatoo ko contrôler moom moo tax biñ fi ñëwee sàcc nañ suñu plus de cent et quelques ginaar ay pigeons yëpp amoon nañ ko fii mais kii jaar ci ndox mi guddi mënoo ko contrôler parce que loo liggéey liggéey tamit bu wàcc jotee dangay ngay wàcc dem ñibbi donc noonu lañ def ba moo tax pour ñu yar ginaar sax problème la parce que insécurité bi ma doon wax chaque fois day daal di feeñ donc bëgg nañu yar commencé nañ di élever ñu ngi yar ay nag ngi yar ay xar mais yooyu yëpp boo amul sécurité bi ci war rek donc ça pose problème parce que bassin bi bu débordé rek ñun ñëpp dañuy nekk ci jafe te loolu tey jii vraiment bëgg nañ daal état gën ci mën a taxaw parce que mën nañ fi yar jën mën nañ fi yar lu ne te loolu nag dana dimbali état ci programme bi nga xamante nii donc amoon na agence bi amoon na ko muy programme toolu kër yi ñu mën koo lawal ci gox yëpp mais tey boo xoolee tey li fi nekkoon ci toolu kër yëpp tey bii rek nga fiy ñëw fekk ko muy exister amoon na hôpital Fann am na hôpital Dalal Jàmm am na ci quelques régions yu am mais malheureusement yu ci bëri fonctionné wul parce que gëm-gëm bi moo des parce que ñun lu tax suñu tool di fonctionné ba léegi dañu gëm environnement dañuy dund environnement dundee wuñ ko mais dañ koy dundal moom moo waral tey ñun ñu nekk fii ba léegi maanaam ñii ñu njëkk am ay tool yëpp tey jii boo fa demee fekk woo fa dara waaw tey ñun tey ñun li ñuy xëy di maye ci ay garab donc yaakaar naa ni euh, jéggi na dayo kon ñi fi nekk jar nañoo gestu jar nañoo jàppale parce que du kenn koo xamante nii donc salaire moo la fi bàyyi sa jomu bopp moo la fi bàyyi bëgg sa gox naat bëgg réew mi naat moo la fi bàyyi mais du salaire du rien di tout boo xamante ni yaa ngi ko fiy yaakaar donc liñ fiy am lépp suñu jomu bopp la suñu ñax bopp la li ñu jëlee ci mbedd mi valoriser ko génnee ko jaay ko mu jur dara ñu jënd ci essence mën a arroser suñuy garab mais bu ñu amee kuñ jàpp la dañuy jël alors ba tey ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci Médina Gounass ba tey ci bassin de rétention bi mais zone bi moo nekk juste derrière si li nga xamante ni mooy bassin bi li nekk espace bi nga xamante ni moom mii di l'homme plastique moo ko daal di exploité defar ko nii ba mu daal di ñi nga xamante ni saa bu ngoon jotee rek ñi nga xamante ni ñooy askan wi yeewoo fii dañuy ñëw fi di fi féexloo yu ni mel xale yi sam tamit dañ ciy gis seen bopp bu baax a baax comme ni ngeen ko gisee ci image yi alors mu nekk loo xamante ni yaa ko initié jël sa initiative bu bopp jël ay pneu def sa décoration peinture ba fii daal di rafet car macha allah loolu bokkul dara décor bi nga xamante ni moo am ci ginnaaw basan bi. waaw merci beaucoup dañuy am mbégte bu baax expliquer li nga xamante ni réalisation Sénégal propre la ñu gën koo xam ci l'homme plastique. parce que fii nekkoon na barab bi nga xamante ni askanu Médina Gounass charretier yeeg ñëpp ku amoon sa mbalit fii nga koy indi bunt bi moo nekk nii ci sunu ginnaaw. donc mu nekk dépotoir d'ordures à ciel ouvert bi ma fi ñëwee nag donc doog nekk doomu gox bi ma xalaat ni lii yàgg-yàgg buñ ko seetaanee nii musiba bi ci ñun rek lay ci ñun rek lay conséquences yi ñoo koy sentir donc ma ñëw dox ay jéego dem gisee que euh, agence sénégalaise de la su soumettre leen benn projet ñu jàppale ma ci ñu ñëw vraiment taxawal li nga xamante ni moom mooy espace bi parce que fii yëpp suuf la woon donc garab yi nga fi gis yëpp tey bokk na ci li nga xamante ni sunu réalisation la non seulement yamul ci espace bi mais tey quartier bi yëpp tey buntu kër goo ci dugg am na ponkalu garab bu fa nekk tax garab yooyu yëpp doom yi lañ jëm fori ko ci yenn buntu kër yi ñëw jëmbat ko seme ko mu doon garab ñu dem saxalal ko ay nit parce que dañu am benn programme boo xamante ni une maison un arbre yamul rek ci saxal garab mais tey bëri na ci kër yoo xamante ni tey boo ci duggee tey lépp loo xamante ni wàllum légume la ñu ngi koy togg ci biir kër gi ci biir kër gi lay ñoree parce que dematuñu marché dem di ko fa jëndi parce que loolu lañ leen jàngal ci condition yooyu lañ leen teg vraiment ba tey lu bëri daal tey ci Médina Gounass ñi ngi ko fi daan gis ñi ngi koy commencé di gis ne mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax loolu nag moom waral vraiment lii ñu def fii pour wane ne kenn ku ci nekk en tant que citoyen am nga sañsañ sañ wala mën-mën def lu mel nii ci sa biir gox ci kaw nga am benn espace même bu dul espace bu rëy sax waaw lépp ci nature bi lañ ko récupérer defaat ko ci nature bi parce que tey daf ñu permettre tey bu événement amee nga gis ne panneaux yi dañ koy taal mu jur xeetu solution pollution boo xamante ni atmosphérique ñi amee feebaru asthme dañuy am problème ñi amee feebaru cancer dañuy am problème rawatina nag donc Euh, li ñuy yàq ci sunu couche de jaune bi ñu am idée wu pourquoi pas ñu jëlaat pono yi di ko valoriser di ko def ci espace public yi mais di ko def ci école yi tey loolu permettre nañu tey daanaka école yi nekk ci banlieue bi yu ci bëri tey jii donc vraiment ñi ngi leen di former mais ñi ngi leen di wax tamit donc am na certains décès yoo xamante ni mbedd mi du place te ñun ñëpp bu ñu jàppee rek kenn ku ci nekk li nga bëgg ci sa gox mën naa nekk Sénégal gu set mais Sénégal gu naat. alors comme ni ngeen ko gisee def nañu tour daal di dugg ci bassin de rétention bi nga xamante ni moo nekk fii ci Médina Gounass fii ci Géejawaay mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi dund fii ñu ngi koy daal di am saa bu ñu xëyee fii ci Médina Gounass ci Géejawaay bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni daal nañu koy lim euh, teinturier maanaam ñi nga xamante ni ñooy cuubkat yi euh, produit chimique yi nga xamante ni moom la ñuy daal di jëfandikoo ngir amal seen ab liggéey ko déverser waat ci biir bassin bi loolu tamit ay gàllankoor la euh, rawatina ci ñi nga xamante ni ñooy ay soxna mais également ki nga xamante ni mooy homme plastique moom itam nga xamante ni ak xelam bu sell ak xam-xamam bu màcc daal dina ci amal liggéey bu am solo lépp jëm ci daal di aar gàncax gi loolu loolee nekk liggéey bu am solo bi nga xamante ni wan nañ leen ko mais également explication yi nga xamante ni yëpp jox nañ leen ko mu nekk point positif bi nga xamante ni mënees nañu koo jàpp euh, ci li nga xamante ni mooy bassin de rétention bi mooy ñi fiy bay ak ñu ni mel comme soxna yi niñ ko daal di expliquer mais nag jafe-jafe bu mag bi mooy bassin bi nga xamante ni à la base euh, solution la waroon a nekk euh, ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi waa Médina Gounass di dund euh, ci wàllum nawet beek yu ni mel ndax moom la ñu daan jàpp ni mooy récupérer ndox yi nga xamante ni mooy ndoxu taw yi waaye jamono ji nag beneen gàllankoor la leen andil la place de solution ndax ndox yi day daal di andi ay xet yu bon day daal di dajaloo fii nit ñi itam nga xamante ni ñooy yeewoo fii ci gox bi dañuy daal di faral di fi tuur si ay ndox ak ay mbalit loolee nekk beneen gàllankoor ci ñi nga xamante ni ñoom ci jëm boppam ñoom ñooy yeewoo fii loolee nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ni dikk nañ ci bu baax a baax ci bile euh, grand reportage ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig taje ci beneen grand reportage ak yeneen i sujet incha allah